That was his fault. ñu ngi lay félicité ci koro ci bëri di nga bëri ak ñi nga génnee jàmm allah ñenn ñi ne sa digganteeg Ama bëgg na ci mbër yi ci yi ñenn ñi sa digganteeg Balla bëgg na ndax da xaar. promoteur bu indi avance ci ñaar ñoom nga jël ko dafa am kenn koo gisee ci ñaar noonu ndax ñëpp ngi wax ñaar adversaire yooyu yëpp koo ci bëgg. waaw loolu nag pour man mën ma ci wax nii quoi waaw rappelé sama contrat moo fi mooy confirmé waat sama diggante ma ne lu ma ci wax nga jégal ma loolu après naa ci wax leneen question boobu lu ma ci wax parce que lu ma war a wax pour le moment pour le moment li ma war a wax mooy ci li may jógee. di félicité Mansour di félicité Lac waaw ci maanaam en tant que mbër waaw nit la boo xamante ne luñ séggul lañ ségg la na jeex na ok jàmm waaw di wax ne man question yi nga xamante ne tey si fii ma toog nii ci loolu laa gën a mën mhm. wax si mais nga xamante ne mooy combat boo xamante ne ñëwagul wala kan laa war a bëre non loolu ba ngeen dem ngeen laaj waaw parce que moom rek laa déglu quoi. man dafa am lu ma bëggoon laaj rek par rapport ak xam nga combat bi parce que lamb saa yu amee rek ku nekk dina am noo koy jàngate ñii dañ doon wax ne Siteu dooleem maye bu ko mu bëreeg ténor yi am na ñu bëri ñu doon wax loolu parce que xëy na sa masse la ak yu mel ni kii noonu mais gis nañ ne bëri ñaari ténor wala sax mën nañ ko tuddee ndax Zarko du mbër mu ndaw Papa Sow tamit. ñu ngi koy ziar bu baax a baax léegi nekkatul mbër mais ku ne xam ne nekkul mbër mu ndaw Lac de Guiers 2 mi waxi noppi Lac de Guiers 2 la gagné par avertissement Siteu bi muy dégg loolu ndax loolu moo ko poussé woon mu liggéey à ce que bu ñëwee ci bés boobu lu mënti xew même bu ñu koy gagné tamit desu ko jàpp daane ko ci wal bi gàng waaw côté boobu lu ma ciy wax mhm. mooy doole doole bëre mhm. doole moo ci gën a tuuti doole gën a tuuti si bëre waaw ah. lu tax loolu. parce que xam-xam moo si njëkk technique. technique waaw. technique mooy njëkk te tey loolu wane naa ko man sa baaraam sa benn baaraam bu mag sa bu ma ko jàppee damay bëre ba man dama si daan waaw parce que loolu mooy technique après puissance yi soog a ñëw. Mhm. puissance nag loolu yax la. Mhm. nit ki mun na ko am mun na ko bañ a am mais ñi ngay jëflante boo ko amee boo waaw man fi ma yegg si caaxaan ci jiwu ma waaw te lan guerre pour l'instant dama koy. joxaat li nga xamante ne moom la moomoon ci man muy mag muy nit boo xamante ne d'ailleurs bu muy bu loolu la ko am mais làmb moo ni mel làmb mm-hmm. moo nekk loo mm-hmm. yaram bi day tàng mm-hmm. mais man sama gëm-gëm ak sama vision mooy man amul mbër bi bëre si arène bi koo xamante ne yow góoban dama lay daan voilà gëm-gëm boobu moo nekk ci man moom laa doxaale ba tey te keroog loolu laa wane te combat bi gis ngeen ni gis ngeen ni ci xew waaw li ci xew ñëpp gis nañ ko ñun lépp lu ñu war a def def nañ ko man def naa ko man loolu laa am waaw li ma waxoon def naa ko bëri naa xeex naa mais tey victoire bi lu mu amee du nag dama saltal victoire yi jàmbur mais man ba léegi man gëwuma dama daanu gëwuma ko waaw parce que lu tax gëwuma ko mooy avertissement bi ma jox ma am ko te ma mérito man dama gis ne avertissement boobu c'est la même chose la man fi ma doon séntu mooy dañuy dem prolongation ok man sama puissance ak waaw man foofu laa ko commencé imposé. da ngaa nangul bi quoi. non du question défaite amu fi. Hmm. défaite amu fi da nga naan lenn moo am mooy arbitre mooy jël victoire jox ko Lac de Guiers waaw loolu CNG nangu na ko mais man laa wax man nangu ma damay daan parce que bu ma ko nangoo tëdd naa bu yàgg. Hmm. waaw dama bañ ba tey. Hmm. waaw. am na solo aja Fatma. mënul benn polémique Guédiawaye ñu dégg version bu nekk que ni Siteu Balla Gaye daf koo wax ni avant muy bëri Balla Gaye dafa soo daanee ba nga dépense ñu gis ni après Siteu dañoo bëgg a xam ne loolu lan la demee parce que ba tey Siteu ku ma def mais dafa dugg pour bi ba tey ku ma ko naan est-ce que loolu loolu non loolu la moo ci nekk li ma la wax tey wax naa la ko nee naa la moom a woo waaw mais da nga waroon a laajte woo woo kañ la ah loolu bu may préparé sama combat man ak Papa Sow bu njëkk bu yàqu woon loolu ci la amoon li wax boobu sax Gambie la ñu fek ñu wax ak maama Lamine nii mu wax man Balla Gaye nit ku baax la champion la aussi yooyu nekk champion boo xamante ne lu mu def fii si làmb yow bu dee keneen def na ko waaw c'est la même chose parce que moom gis nga ko pour yóbbu tur Guédiawaye gis nga lan la ngeen pour yóbbu tur Guédiawaye kon tey ñooñu lu tax waruñu wax ñun tey lan moo tax parce que tey ñoo bokk business bi te Balla ñun suñu grand la lan la ngeen ñu nekkee sama grand moom may mais bala kay déggante wu moom si may préparé loolu avant Papa bu njëkk ba la boobu suñ deuxième combat bi jàmbaar tëgg maag Papa Sow su amagul waaw kon pour wan la ne nit nekkul ne da ngay dégg tëll rek di rajax waaw man nag aw ma jot bu may leeralee comme lu métti loolu non man aw ma temps boobu waaw mais li ma la mën a xamal maa ngi ci làmb te làmb gis na ko bi ma jógee gis na kii yi ma jógee samay mbokk dañ may yaakaar ngeen ko kon man waaw su may wax nag nit day yaakaar ne gëm-gëm kese laay waxee mais dama ci boole mën-mën waaw ak nangu nangu nag mooy topp sa ginnaaw wax jum topp sa ginnaaw mag sa ginnaaw staff la ni samay xarit bu ñu ma ne defal ma def bàyyi ma bàyyi loolu moo ma indi fii li ma indi fii nag jëlewu xam lu ma la caaxaan jëlewu ma fi de comme wax ne Siteu ñu ngi cherché a combat ñu gis ne Siteu ñëw imposé boppam am na benn instant boo xam te ni yaa ngi bëri ba waxat ko ne ko ñëwal ne ko est-ce que tey lii boobu gars yi xam nga nag jànk nag moo wax la benn affaire man gëm-gëm bi may doxee man ma sax li ñuy wax man wax dëgg fa yàlla xaw ma li ñuy wax mais man yow man su ma xoolee samay famille xam ne làmb rek moo may teral pour ma teral leen yow loolu dafay jaral sa suuf damay gën a yokk maanaam dama la wax ne làmb ji dama la ne góor bu fi ngemb mënu ma te nee naa la li ma fi dugal seen biir génnewu ma waaw loolu nag laay wax mais tey dama bëgg maanaam CNG bi CNG gën a joxaat lu bëri seen dayoo gën a toppaat làmb parce que tey boo xoolee combat bi keroog même arbitre yi doon arbitre sax yaakaar nañ làmb ji du am sax 3 minutes waaw sérieux dëgg rek moo neex yàlla parce que tellement que dañ ma doon yàqamti loolu lépp te man boobu maa ngi def tepp tepp du ma leen sax déglu wallaay parce que sama yoon laa nekk mais bi ma bëree ñoom xeetu bëree bi ma bëree maanaam jaaxal ne sax moo tax sax yow li ñu war a toog sa toog ñu ko mais man ak Lac de Guiers bu rafet lañ bëri voilà bëri bu rafet lañ bëri te man chaque jour damay joxe mais man dama am fu ma yem dama am conseil làmb ji dama ñëw ak conseil ñëwuma ak sama sama philosophie ñëw rek bëgg a def ñëw non non dama ñëw ànd ak samay conseil ñu ne ko fii nga yem ma yem ko ok man def naa lépp lu ma war a def lépp lu ma war a def man nit ko def naa ko mais wane naa naa njàmbaar wane naa gëm parce que nit ñi duñ topp sa ginnaaw te de góob doo gëm waaw loolu moom wane naa moom jeex tàkk waaw di am mbégte ci li ma bëree man am ci fierté waaw. Fallou